ñu fi ñëw ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waaye di leen nuyu yéen journalistes yi defe naa ñëpp xam nañ li fi jotoon xew ay weer yuñ génn dañ ma jàpp yóbbu ma dig yóbbu ma Cap Manuel nëbbu ma bi ñaari weer presque ñetti weer mu métti lool waaye ma muñ ko dund ko ci fulla ci ngor ak ci jom may profito aussi di wax ci condition yi détenu nii di dundee dafa métti métti na trop du ma ci bëgg a wax parce que su ma si waxee sax sama xol day tooy waaye loolu yëpp gouvernement bu incompétent gouvernement bu cuune bu fi nekk moo ko waral parce que Sénégal li fi doxul dafa bëri lu tax ñu jàpp ma tëj ma nag du lenn lu dul sama compagnonnage ak Thierno Alassane Sall daf leen a déranger li tax ma ànd ak Thierno Alassane nag parce que dama gëm ni moom moo mën a defar réew mi parce que réew mi lu fi yàqu dafa bëri lu ñu fi war a defaraat dafa bëri waaye it ma am ay ambition politique ci gox bu ma dëkk muy Nioro di Rip ma gis ni mairie bi. ni muy doxee walla nu muy yoree mairie nu muy yore dëkk bi baaxut li ñu fa war a changer dafa bëri li fa doxut dafa bëri benn ndaw liggéeyut dara doxu fa pour cela faut que ñun jeunesse nioroise bi ñu jël suñu destin en main jëlee fa ñu fa nekk suñ fa jëlee ñu fa nekk teg fa ay jeunes waaye nag nekkul n'importe quel jeune lañ fay teg jeunes yu ñu fay teg mooy jeunes yi nga xam ni seen dëkk rek moo leen ñor jeunes yi nga xam ni am nañ mën nañ apporter changement foog naa ni loolu mooy gën. di leen wax aussi ñoom ñooñu di ma jéem a xoqatal nañ xam ni loolu di jàll parce que man dëgg laa àndal yàlla laa àndal te ku ànd ak yàlla doo ragal ku ànd ak dëgg doo ragal bu fekkee nag kaas injustice bu nekk ci réew mi. casse corruption bu nekk ci réew mi mal gouvernance bu nekk ci réew mi moo tax ñu ñu may jàpp bi ma yóbbu prison nañ ma fa tabaxal benn néeg tuddee ko chambre Babacar ture parce que pare naa pour demaat prison pour sama réew ak pour sama gox Nioro waaye maa ngi remercier Thierno Alassane Sall sama président le président de la République des valeur mi nga xam ne biñ ma bi ma yoon tegee loxo amul lu mu deful pour ñu bàyyi ma lépp mu ngi ko def. ci jox cër justice bi jox cër institution yu nekk ci réew mi comme ñu ko ñëpp xamee maa ngi koy gërëm di ko sant parce que moo tax tey réew mi ñëpp xam ni man defuma dara dañu ma tooñ tuumal ma maa ngi leen sant di leen gërëm.